salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne si nii yéen a am mbégte kontaan di seetaan seen site internet bi nga xamante ne si nii moo di 24 bi nga xamante ne si moom leen wooyu tous les sports xeetu yi nga xamante ne si nii yëpp askan wi ñu ngi koy jëfandikoo moo xam karaté la moo xam football la moo xam handball la moo xam bëre la lépp seen site internet bi di 24actu.com ñoo ngi di ànd ak yéen di leen ko toppal bi nekk seen premier numéro ñu ñëwoon tey fii ci Touba ci quartier bu ñuy wax Daaru Manaan ci Kërëb Yaakaar ci kanam tuuti dina ànd ak ki nga xamante ne si mooy maître salle bi ñu expliqué ñu ni salle bi fonctionné ni ngeen ko gisee ñoo ngi waat fii encore ba tey si seen club bi nga xamante ne si mooy Kërëb Yaakaar ñu taxaw ki nga xamante ne si ni mooy Salif Diouf mi yor xale yi nga xamante ne si ni mooy ci wàllu waa 24 actu ñoo ngi waaw ah, di comme comme ñun ay dañoo yor ay ay ay xale ba ñu nekk ay combattant ko am droit toog di xaar chaque jour ñu ngi ci préparation yi xam ne bu compétition jotee rek dañuy dem participer incha allah. bi entraînement yi ak xale yi métti na wala. moom mënul ñàkk métti ndax yaram moom boo fekkee da nga ko teg xam ne bokkul ak li nga xam ne loolu la loolu la baaxoo mënul ñàkk métti mais bëgg-bëgg bi moo mooy mooy muur métti bi ndax mbir soo ci nekkee mu nekk nga bëgg ko. da ngay dem ba coono bi ci nekk dootoo ko yëkkati ñun dañuy dañuy remplacer coono bi ak bànneex ndax lii ñun ñoo ko ñoo ko bëgg ñoo ko opté def ko muy suñu métier. maître yu jiite ay xale jafe na de. waaw jafe na jafewut ndax euh, xale moom euh, xam nga stratégie rek lañ lañ koy lañ koy gérer ndax euh, da ngay fexe rek ba ñoom li ngay li ngay dugal ci seen ci xel ñu bëgg ko bu ñu ko bu ñu ko bëggee ba nga xam ne heure bu entraînement jotee rek ñoom dinañ dinañ sawar a ñëw entraînement rek. donc li ci des moom li ngay fexe bañ technique beeg yooyu dugg seen bopp moom loolu loolu stratégie la xam xamu mètre la moom kilifa yi xam nañ xam nañ. da ngeen dalee def entraînement ak waa bi est gis nga si yenn jafe-jafe ak ñoom wala loo xamante ne si jar na ngay dem si maître bi naan ko ñu ngi ma boole loon kat mënatumaa nekkati ak ñoom non non non loolu moom gisaguma ko te bu ma ko gisoon tamit du ma du ma du ma ndax <laughs> ndax comme nu ma nu ma nekk ak nii noonu noonu lañ ma lañ ma fi lañ ma dalalee bi may doog a ñëw fii euh, ci tànk yi tànk yi ma yi ma nekk ak ñoom nii foofu lañ ma teg donc lépp loo xam ne dund naa ko ñoom rek dund naa ko ak supérieur yi ma fekkoon comme ku ci mel ni maître Modou bi nga xam ne moo ñëwee moom laa fekk moo ma tàggat sent blanche ba indi ma fi ma nekk nii donc lu may lu may daj ci xale yi double bi wala triple bi dañ na ko ci man te mësu mësu Euh, actuellement médaille moom bëri na ah, mais xam naa daal médaille yëpp yëpp moom mënu ma mënu xam exact nu mu toll mais daal li nga xam ne moo ciy gën a am importance mooy euh, su nekkee ci wàllu région bi nekk nañ cinq fois cinq fois région de Diourbel champion champion région de Diourbel nekk deux fois champion du Sénégal finaliste champion du Sénégal quatre fois donc ëppoon ëppoon yi am ci Sénégal yëpp jël naa ko fii moom Sénégal moom amatuma fi loo xam ni jëlaguma ko international tamit jot nañ jot nañ fa jot nañ fa dem du suñu jot nañu fa may benn médaille loolu daal mooy xam ne mooy mooy bi instant bii nii nii waaw ñuy waajal nag incha allah di dugg ci sama 2019 bi pour dem ci kaw incha allah ceinture nga xamante si moom leen gis xale yi takk nii ma gis ñu noir yow ban ceinture nga si toll instant yi ban ceinture moom nga arrêté waaw non man arrêté wu ma te du ma arrêté allah man ceinture noir deuxième dan la phase bi nga xamante bu fekkoon ni sax dañu laa dénk ñoo xam ne neexu ñoo yor day mooy nekk problème mais ñu ñi ñëpp ngay gis ay ay champion kenn ku nekk ci ñoom au niveau ñëpp xam nañu nekk jël na catégorie am compétition yëpp au niveau national fii am na ay champion Sénégal fii ay champion régional ñun amuñu amuñu problème ak ak ndax ku nekk ci ñoom xam na xam na victoire xam ne nu muy def ba am ko da ngay nekk seen kanam rek juste pour di leen encadrer ak di leen pousser rek ñu ne ci yoon bi. ko wax woon sànq si début ñoo bi nga xamante ne si moo di. Daaru Manaan fii ci Touba ñu nekk ci club bi nga xamante ne si mooy club yaakaar ñu taxaw ak ki nga xamante ne si mooy maître Mamadou Diop xamante si moom moom salle bi maître Mamadou Diop waa 24actu ñoo ngi lay nuyu. maa leen di fay sëñ Bamba maa leen di baax. ñi ngi am mbégte ak kontaan de ànd ak yow ci émission bi nga xamante ne si mooy tous les sports di émission boo xamante ne si bàyyiwul wàllu karaté bàyyiwul taekwondo bàyyiwul lamb bàyyiwul. football lépp loo xamante ne seen xeetu sport la seen site internet bi nga xamante ne si mooy 24actu.com ñu ngi ci ànd ak yéen di leen laaj ban at nga créé salle bi nga xamante ne si moo di club yaakaar. waaw salaamaaleykum sëñ Bamba euh, ginnaaw bi ma la nuyoo di rafetlu sa question yi nga xamante ni moom nga ma posé. li jëm ci wàllu club bi di yaakaar taekwondo club. club bi maa ngi ko créé euh, le 11 août 2006 ci laa ko ci laa ko créé. waaw ci fii nii ci Touba waaw man nag euh, maay responsable bi. moom euh, Mamadou Diop centre euh, noir deuxième dem waaw man maay enseigner xale yi fii quoi. sëñ bi tey jii est-ce que mën nga noo expliquer comme par exemple fan nga xamante ne si moom nga jàngale lii di karaté ba dikk di ko jàngal xale yi nga xamante ne si koñ bi di Darou Manane. waaw taekwondo maa ngi ko jàngee Mbacké euh, ci benn maître bu ñuy wax Cheikhouna Badji moo ma ko moo ma ko commencé ku ñuy wax Aliou Kane moo ko àggaleel. ci moom sax ci la club bi sosoo depuis 2006 waaw ci moom foofu la jógee quoi foofu laa ko jàngee ba yàlla def tamit euh, tey ma nekk fii di jàngale tey kondo quoi. maître ñu gis salle bi macha allah xale yaa ngi entraîné ñu bëggoon a xam ba xam salle bi nga xamante ne si ni moo di yaakaar bi ngeen ko ba tey yan trophée moom la la xale yi indil fii yoo xamante ne si ni tax na nga gën a am courage nga gën a am confiance si ñoom ba gën a nekk ñoom si liggéey ba tey jii. waaw parce que su ma yow ma ne yi moom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ que. Euh, depuis bi mu ubbee saal ba léegi ay médailles yu bari dugg na fii euh, au niveau national parce que open national yi nga xam ne compétition nationale yi nga xam ne moom la ñu organiser Sénégal yëpp di dalee ci coupe ambassadeur Sénégal champion du Sénégal coupe du Sénégal euh, ak open national yi nga xam ne moom la ñu organiser région yëpp yàlla def na ne xale yi am nañ médailles yooyu ay première deuxième troisième médailles yooyu yëpp daal dugg na fi waaw xam naa tey su ma doon natt médaille daal yàlla xanaa bari na quoi bari na trop bari na trop waaw ci ci ñoom ñi yëpp kenn ku ne daal gañe nga ay médailles yu parce que fii tamit euh, wax dëgg yàlla ñoom jàmbaar lañ parce que am nañ ay représentants yoo xamante ni ñu ngi nekkoon équipe nationale euh, capitaine capitaine club bi nii di Saliou Diouf moom nekkoon nekkoon na équipe nationale yàlla def euh, génnoon na ci benn ëppan bu ñu doon organisé Mali boo xam ne équipe nationale Sénégal ñoo fa demoon yàlla def mu jëlee fa troisième troisième médaille bronze moom tamit ci ñi nga xamante ni ñoom la nekk champion de Sénégal bi bi ñu génn tamit bu 2018 bi ñu xale yi wax dëgg am nañ fa ay médailles euh, am nañ fa euh, médaille champion du Sénégal médaille d'or te ñoom ñëpp ci salle bi lañ nekk daal. maître salle bi ngeen ko créé ba pare ban jafe-jafe nga xamante ne si ne nekk nga salle bi doon loo xamante ni toog nga sa biir kat di ko naqarlu. waaw jafe-jafe bi ñu am de mooy manque de moyens parce que tamit euh, club bi tey soo xoolee biñ depuis bi ñu ko créé ba léegi yàlla def na ñu ngi gërwal ay trophée fii ci ci région bi te même daaw ñu def benn remise de médaille boo xamante ni. boo xoolee autorité dëkk bi yëpp bon invité woon nañ leen ci mais soo xoolee bon ñëwoon nañ nag wax fa ay wax xamal ne danañu jàppale mais tamit ba lay ba tey rek quoi ba tey tey waaw waaw. des na yéen seen salle bi yoo xamante ne da ngeen koy def open club yaakaar nga xam ne da ngeen ci am ay invité yoo xamante ne si bu ngeen dikkee dinañ mën a jàppale seen salle bi la. waaw loolu am na parce que boo xoolee 2019 bi euh, club bi dafa war a organiser benn open national boo xamante ni euh, club yi nga xamante ñoo nekk au national yëpp. te affilié ci fédération sénégalaise de taekwondo dañ cee war a participer ñu ngi ko war a def le 19 janvier bii di ñëw à Mbacké lañ ko war a def ci théâtre de Verdure bi waaw loolu la te doon loo xamante ni tamit acte bu rëy la daal te fi mu toll nii ñu ngi koy ñu ngi koy def ci ay moyens yu difficile daal parce que boo xoolee ko euh, autorités yi ni ñu ci war a jàppee des na mais boo xoolee suñu moyen bopp daal la ñuy dajale di def suñu cotisation pour mën a organiser te bu doon loo xamante ni xaalis bu bëree bëri bëri la laaj parce que boo xoolee suñu budget bi daanaka xaalis bu la mais ba tey amaguñ benn soutien mais ñi ngi def suñu moyen nag incha allah danañ fexe tamit affaire bi jàll daal parce que loolu sagu région bi la en même sagu club bi la sagu taekwondo Sénégal la daal waaw loolu lépp tamit club bi ñu koy waajal su passé tamit actuellement mais li gën a jàmp ni actuellement mooy suñu ëpp national bi nga xam ne moom la 14 régions Sénégal yëpp war cee participer daal. mu war a doon kañ. waaw le 19 janvier bii di ñëw la. Euh, ci théâtre de Verdure ci Mbacke quoi. waaw. lan ngay wax askan wi nga xamante ne si bëgg nañoo topp club bi di yaakaar pour seetaan open boobu noonu. waaw li leen wax askan bi moom di leen jox rendez-vous euh, samedi le 19 janvier Mbacke di leen wax ne rek nañ ñëw bu ñëwee dinañ xool compétition boo xamante ni euh, dina neex. ndax ay combattant ay sampe yu mag yoo xamante ñoo nekk ci Sénégal ñoo ci participer wax dëgg yàlla da il ñu jéem a ñëw bu mën a xool daal li nga xamante ni moom la club yaakaar war a organiser ci région bi daal mu doon lu am solo loo xamante ni sama yeboo ma ne incha allah bu ñu ko defee daal xam naa c'est la première lay doon quoi. ndax xale yi nga xamante ni ñoo ngi ci saal bi seen waajur joxe nañ ci seen kàddu wala ñoom dox nañ ba seet ba xam seen xale yi ñoom si lan la nekk. fii fii nag su fekkee xale bu majeur régul moom Euh, ba dañ laa jël say parents moo lay mën a indi même boo ñu indee sa bopp dañ lay wax demal nga wax ci say parents bañ indil wala ñu def benn autorisation boo xam ne day waral ne benn rëpp euh, dafay am ku ñu ànd ak yow ku moom moo ko yebal parce que xam ne xale yu fi nekk yoo xam ne seen i parents nekkuñ dañ bu ñu leen waxee loolu dañuy yebal benn seen benn euh, kilifa boo xam ne dana mën a ànd ak ñoom bu ñëwee war na ne seen parent moo joxe autorisation pour ñu jàngal leen bu fekkee xale bu majeur la nag bon soo dikkee bon nañu wax ak yow wax la li nga xam ne moom la saal bi bëgg parce que saal mooy li nga xamante ni lépp lu dëppawul ak yoon la wala lépp loo xamante ni jaarul ci yoon wala lépp loo xamante lu jëm ci ay affaire indiscipliné wala yooyu affaire yu kii yooyu dañ la koy wax boo defee soo ci soo ko mënee respecté sart salle bi nga mën a adhéré ci salle bi su fekkee tamit xëy na demul noonu après daal noonu la daal ci condition maître ñu gis ni lu am important la surtout ci ndaw ñi mu laaj ay moyens yoo xamante ni si ak expert bu ñu ci mënti nekk da ko war a am mu mel ni gouvernement bi da leen a xaw a soofantal ci côté googu noonu te ku si nekk da ngay am si benn xam-xam nekk si benn ruq bi bëgg ku la jàppale doo gis ku la jàppale lan ngay wax ci loolu. waaw loolu moom loolu xëy na sport Sénégal yëpp ñoo koy jooy parce que boo xoolee euh, sport Sénégal ñooy ñooy jooy lépp waaw ñooy jooy loolu parce que xëy na su passé football bi moom. daanaka boo xoolee yenn sport yi ci suuf yëpp ñu ñu ngi jooy lu mel noonu daal même même difficulté bi la daal ñun ñëpp moom la ñuy jànkonteel parce que moyens yi nga xamante ni moom moom lay war am pour man a mën a def suñu activité au niveau national au niveau international day métti lool day métti lool parce que loolu day dem ba jàpp équipe nationale sax des dañuy génn euh, dañuy bëgg a génn mais seen moyens day xaw a waar daal mais tamit wax dëgg yàlla tamit euh, ñoo ngi sant yàlla daal ñoo ngi sant yàlla bu baax. xale yi nga xamante ne si ñoom jàng nañ métier bi muy armation bi est-ce que ñoom bu ñu génnee biti mën ngaa dégg ñu ne ah sa élève bi de xeex na def na fi nàngam. waaw loolu loolu mooy li ma la wax léegi rek parce que loolu dafa doon loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy dafa bokkaale ci sart yi nekk xale dañ lay wax ne salle bi bëgg na lii euh, lii li mu bëgg nag dafa noonu loo xamante ni dafa bo dafa nekk ci serment taekwondo parce que dañoo bëgg ngay maîtriser sa bopp ci a nekk ci loo loo mën a nekk ak loo foo mën a toll la nit bu fekkee yaa ngi maîtriser bopp ci loo mën a nekk ak loo mën a gaar rek ngay ànd ak sa xel am na loo xam ne doo ci dugg daal am na loo xam ne doo ci dugg bay dem du dugg ci histoire yoo xamante wala yenn coow yoo xamante ni loolu la fexe génn ci yow daal parce que bëri ci xale yoo xamante daanaka bu ñu fiy ñëw dañoo bëroon attroupement daanaka loolu sax bëgg xeex sax moo leen ci dugaloon mais bi ñu dikkee ba fii dañoo mujj changé daal changé ba nekk ñoo xamante dañuy dañuy ragal daal waaw. léegi sëñ bi waa 24actu point com ñoo ngi lay sant di la gërëm di la wax yan kàddu yu mujj moom ngay tëjee. waaw ah cant gi maa ngi la koy dellool yow mi nga xamante ni yaay Bamba. ñëw waa Cheikh Bamba ñëw déplacé wu ñëw fii ci club yaakaar defi reportage bi mu nekk euh, sa premier numéro ba nga xamante yaa ngi ko war a jàll kon ñoo ngi beneen message bi ñu lancé nag mooy ñu lañ lancé internet yëpp nañ concentré ci li xam ne lu am solo la loo xamante nii wax dëgg yàlla day jàppale sport bi surtout ñun ñi nga xamante ñoo nekk côté bii day gën a développé sport bi da gën a jàppale dana tax ba suñu suñuy njàmbat wala li ñuy bëgg-bëgg danañ ko mën di ko jaare kon loolu daal laa lay gën a sant di la wax ne nag li may lancé waat ñi nga xamante ñooy autorités yi nekk fii daal nañ gën a jàppale armation bi au niveau euh, régional au niveau national ñu gën a jàppale ñi nga xamante ñoo koy def parce que métti na lool parce que ci condition yu métti lañ koy defee mais teewul suñu bëgg ak suñu jom ak suñuy moyens bopp ci lañ koy defee kon encore une fois daal ñu ngi sant bu baax di leen ko doon def waaw jërëjëf kon ni ngeen ko gisee noonu ñu nekkoon ki nga xamante ne si ni mooy maître Diop dirigé club bi nga xamante ni mooy club yaakaar nekk fii ci Daaru Manaan yaakaar naa ni kàddu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo 24actu point com ñoo ngi leen sant leen di leen jox rendez-vous ci beneen